Christopher Nkunku bokkul ci match bi nga xam ne mooy dox ci diggante Brighton ak Chelsea nañu ko ñaanal nag wér gi yaramam gën a jëm kanam match bii di ñëw mu pare nekk à cent pour cent mën a jàppale waa Chelsea muy Christopher Nkunku nekk doomu France bu footballu France am ci moom yaakaar ñu jugee ci Christopher Nkunku ak waa Chelsea jël doomu Argentine bi tudd Mathias Soule gone gi nag jamono ji ma ngay football ca si noone waaye club bu ñu naan Chelsea ñoo ko moom dañu ko able foofee képp bu ñu sukkandiku ci Gazzetta de Sport ñaari club yu mag nekk ca Premier League ba dañu ko bëgg te ñoo ngi koy bàyyi xel club yooyee moo di Crystal Palace ak Newcastle li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Juve te ñaari club yooyee yépp nag noppi nañu ngir def ci doomu Argentine bi lu toll ci vingt cinq millions d'euros su fekkee nag loole ñu wax dëgg la ci ñoom suñu ko defee ci gone gi kenn ci ñoom mën na koo jëlee ca Juve ndax xaalis boobeekat Juve du ko bañ jamono ji nag gone gi mi ngi amal saison bu baax ak waa Frosinone Juve moo ko able foofe muy Mathias Soulé nekk gone gu footballub Argentine am ci moom yaakaar xibaar boobu Gazzetta dello Sport moo ko xamle ñu jugee ci Mathias suule ak club yooyee di ko bàyyi xel jël doomu Angleterre bi di Marcus Rashford moom nag saison bi ñu nekk doxalut ak waa Manchester United te saison bi ñu génn nag saison bu baax la amal jamono ji nag Erik ten Hag mi koy tàggat ca Manchester United mi ngi koy jàppal tànk nee na gone gi de jamono jii doxul waaye li ma jàpp moo di balaa yàgg Marcus Rashford mi ñu xamoon miin ko dina dellu si ndax ci entraînement yi mi ngi amal liggéey bu ama am solo li mu bëgg nag moo di balaa yàgg mu dellu si waat doxal ndax kat doxalam mooy sunu njëriñ ñun waa Manchester United kon club bi ñépp ngi koy jàppale ngir balaa yàgg Marcus mi ñu xamoon dellu si waat ànd ànd ak ñun doxal ndax njëriñam kat mooy sunu njëriñ kàddu yooyu Eric ten Hag mi leen di tàggat moo ko yëkkati ñu jugee ci Marcus Rashford ak i jafe-jafeem jël doomu Portugal bi di João Cancelo moom nag mën na am mu xaatim contrat ca Barcelone li ko waral moo di kat Manchester City faw ñu jaay ay jour ndax dañ leen di topp ci wàllu fair play financier kon nag faw ñu wàññi lenn ci contrat yi nga xam ne moom la ñu yor jamono jii te seen gone gii nag nekk ca Barcelone di João Barcelone da koo bëgg. kon su Barcelone defee jéego bu ndaw rek mën nañu ko am ci prix bu yomb ndax kuy wër fu mu fanaan ak kuy wër ku ko wétali te jël buntu bi warut leen a mën a boole Mundo Deportivo nee na mën naa am nag Joao Cancelo xaatim contrat ca Barcelone. ñu jugee ci Joao Cancelo ak waa Barcelone dem ca waa Real de Madrid ñoom nag seen gone gii di Federico Valverde Marca nee na mercato bi ñu génn club yi nekk ci réewu Arabie Saoudite songoon nañu ay mbiram fay ca xaalis xaalis bu bari waaye doomu Uruguay bi moo gàntaloon club bu ñu naan Bayern de Munich tamit woo nañu ko ne ko yow mii kat soxla nañu la ci sunu club li ñu bëgg moo di nga ñëw fii xaatim fi contrat ànd ak ñun doxal waaye doomu Uruguay bi nag ñaari offre yooyee yépp daf ko gantaloon li mu leen xamal moo di bëgg-bëgg moo di toog ci Real de Madrid doxal foofee bis ñëw mu takk seenub capitaine muy Federico Valverde kon nag supporteru Real de Madrid yi nañu ko may ak bu ñuul muy Federico Valverde ndax ku bëgg Real de Madrid la xibaar boobu nag ñoo ngi ko nangoo ci Marca yéenekaay ñu jugee ci Federico Valverde ak bëgg-bëggam jël doomu itali bii di Scamacca moom nag ma ngay football ca Atalanta Bergame waaye atum 2024 bii ñu nekk moom dootu ci dugg ci terrain football ndax dafa am blessure bu métti kon nag bu ñu duggee ci atum 2024 li ñu jàpp moo di blessure boobee dina wér mu duggaat ci terrain yi doxal waaye at mi ñu nekk di atum 2023 moom dootut ci dugg ci terrain football muy sakamaka xibaar boobu ñoo ngi nangoo ci Sky Sport ñu jugee ci sakamaka ak xibaaram bu naqari jël doomu bos Bosnie bi tudd Krunić moom nag ma ngay football ci AC Milan waaye kat soo moytuwul Milan dinañu ko jaay bu ñu yeggee ci weeru janvier li ko waral moo di kat jamono ji Pioli dafa am ñetti milieu de terrain yu baax lool te dañoo déggoo ñooñee lay départ le titulaire ñuy doxal muy Moussa Ruben Loftus-Cheek ba ci Tijani Rashneder ne pioli nee nañu ku leen am looy doyeeti keneen jaaxal na ko moom loolee bokk na ci li tax nag mën naa am moom mii di chronique si mu jugee ca club boobee beneen bi moo di Ismail Benacer wér na balaa yàgg dina nekk à cent pour cent ànd ak AC Milan doxal beneen bi ci toftalu moo di at li sax moo ëpp gone gi temps de jeu kon mën naa am nag chronique si jógee ci AC Milan bu ñu yeggee ci weeru janvier xibaar boobu Sky Sport moo xam xamle ñu jógee ci chronique si ak waa AC Milan wax seeni bëgg-bëgg dem ca waa Inter ñoom nag li ñu bëgg moo di doomu Pologne bi tudd Zielinski nekk ca Napoli ñu naxtaan ko ba mu jugee ca Napoli googee gratuite ndax bu dara soppeekuwul ci diggante bi saison bi ñu nekk bu jeexee contrat am day jeex tàkk ca Napoli inter nag li ñu bëgg moo di waxtaan ak moom tegal ko salaire bu baax nee nañu ko noppi nañu ngir fay la quatre virgule cinq millions d'euros ngir nga jógee ca Napoli gratuite xaatim contrat ci sunu club doomu Pologne bi nag saison bi ñu nekk mi ngi doxal ak waa Napoli ndax li mu jongante ci ay match bu ñu ko boolee dina toll ci dix-huit dugal na ca ñetti bit amal ca trois passes décisives muy si Zielinski xibaar boobu Tuttosport moo ko xam xamle. ñu jógee ci si Zielinski ak waa Inter ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Argentine